allo waa Mimi ah c'est pas vrai <laughs> ah bon ah déedéet xanaa mu ko ah moo. ah oui tata Eva oui sama. ma chérie. ah waaye sama fan si naa ko. ma chère ba ma chère ba. ah kontaan naa macha allah tuuma yàlla rek ko mën ah, macha allah waay waay waay ta Eva waay lii gëmewu ma ko waay ah, maa ngi maa ngi maa ngi na ba dee neex na ba dee neex na ba dee ah. kontaan naa mbaa yaa ngi ci jàmm tu es toute belle en plus oui ëpp ma ma nooy <laughs> yàlla ko mën macha allah na ba dee neex na ba yaa ngi ci jàmm ça va bien tout belle est-ce que xam nga xam nga bala nga maa bëgg maa la bëgg ndax man bu ma gisee lu rafet dama koy bëgg parfois bu <laughs> bu waxati mais fin d'année la ñu nekk dañu war a parfumé wu war a rafet di sol yu baax di def lu baax ñaan yàlla mu doon at bu bees atu bànneex dikkal ni ma man <laughs> gërëm naa. macha allah macha allah defal jàmm. amiin amiin amiin amiin waaye ci at bu bees bi. amiin chéri. ah ta Eva lii jàmm ak salaam rek. neex na neex na neex na. waaye nag gannaaw nii nga def. waaw du ma ci yem. lii laa lay defal waaye lii gën na neexit. yondul yondul yondul yam ca. Ah, la wax ci ma waaw waaw TFM du ñu xewle. ñu ngi TFM a ngi. mu dal ci man nii nag rek. Ah, rek rek macha allah loo leen di wax. Taïba kontaan naa. alhamdulilah fii daal waa TFM daal la fi boobu. macha allah. kontaan naa sama xol na jërëjëf ma ne woon dinaa la romb nii nee naa la parfum bi xet bee ma daal. ñëpp sa man la awa bu ñëpp ah, ma ah, xam ñaari awa yi kon bon. bonne et heureuse année à tout le monde bonne hein, aux gentlemen, à tout le monde, à tous les Sénégalais, à nos fidèles téléspectateurs. Nous vous aimons très fort. kontaan nañu yàlla may ñu ay ati ati ati ati bànneex macha allah yàlla yokk lépp loo xam ne lu baax la ci ñun yi nga xam ne moo ñuy jaaxal yal na yàlla réeral ko te yóbbu ko fu ñu ko du gisee TFM yéen ko fi bàyyi yéen la fi nekkal télévision la institution la di yeete di révélo loolu moo tax ànd ak sa saa su ne def ñi neex bonne et heureuse année avec beaucoup d'amour beaucoup d'estime beaucoup de belles choses. bonne heureuse année. ah <laughs> bye. ana caayin bi teg ngeen ko ceeb bu weex bu am bëggëj ak ataaya <laughs> yow moom sa décembre neex na de <laughs> jaajëf doom nday <laughs> salaamaaleykum papa na nga def ah ma bësal la foofu d'accord voilà fii la rek après ñoom dinañ la ibil dégg nga suñu koñ yee neex <laughs> soxna si waa na nga def mbaa ngi ci jàmm léegi yow yaa may yooxu di ma woo. waaw dugg seen émission ba sonn te mënuloo jot. danga bëgg ñu jox la fa cadeau xanaa. waaw waaw. waa léegi lu tax doo woote. ah man damay dugg woote mais du ma jot. sa crédit di di di jeex. di dem rek di dem rek ci sa doom la. waaw ñaataat la di ah, attaque un mois. attaque un mois. il est tout beau nu mu tudd. Thomas Thomas coucou Thomas coucou Thomas il est tout beau ah il est tout beau mais sama doom moo ko dàq de. Ah, mais moom tamit coof la <laughs> léegi xam nga nu may def ak yow. comme ñu ngi ci euh, euh, fin d'année cadeau bii laa lay jox. Ah. pour Thomas la nag de. pour Thomas. ko ibbee loo ci fekk muy cadeau rek. Thomas. Thomas bon. Voilà. Thomas, ça c'est pour toi. D'accord Allez, joyeux Noël. <laughs> ok. fii ci sama koñ laa leen di ñaanale at bu neex ñu dugg ci ak jàmm génnaat ci ak jàmm yàlla na 2020 dàq 2019 waaye yéen ñu ngi leen di gërëm ci seen fidélité ak télévision Futur Média di seetaan yeewu leen première matinale du Sénégal di ñaan fajar gu jot may xëy di leen gunge ngeen di bànneexu may boole divertissement ak yi utule di leen jëriñ ci télévision Futur Média di leen gërëm itam ci déglu bi ngeen di déglu King FM nga xam ni man maa ko jiite àndandoo ci ak équipe bu professionnel di leen bégal moo xam ci internet bi wala ci bande FM bi ak fréquence bii di 99 point 4 bonne année 2020 et joyeux Noël